ravage infernal noonu laa ko mën a tuddee que ñu bëri ci ñoom euh, ñu ngi perdre seen ñu ñàkk seen ay bakkan ñu bëri ci ñoom gis nañ ko euh, ñu ngi tenter ce voyage néanmoins alors euh, lan lañ mën a jàpp ci émigration clandestine boobu émigration irrégulière bi ak ban frein la ñu war a apporter pour stopper ce ce ce phénomène. alors euh, immigration clandestine am na ku ne ma boo jàkkaarloo woon ak benn booy bu war a dem. loo loo koy wax. Mhm. c'est difficile parce que dama dama dund ñoom situation bi ñu nekk j'ai fait quatre ans aux États-Unis à New York après ma décidé ñibbisi parce que dama jàppoon ne su ma tekki nekkul Amérique suma tekki Sénégal la nekk bi ma paree dama nekkaale woon foofu ci benn rajo bu ñuy wax WPAT ak Dame Babou may dégg Dame Babou samedi ak dimanche laa doon liggéey une heure samedi une heure dimanche ñu may fay huit cent mille francs par mois parce que foofu par semaine la ñuy fay ma bàyyi fa lépp. dellu si ñëwaat Walfajri ak Souleymane Niang ñu may fay cent quatre-vingt-dix mille parce que gëm naa ne su ma tekki nekk loon Amérique su ma tekki senegal la nekkoon loolu état d'esprit la mais nañu bàyyi xel ci kàddu gi Sëriñ Muntaxa di wax yedd yërëm moo ko gën mm-hmm. nañu bàyyi di yedd booy yi gënuñu leen responsable gënuñu leen bëgg réew mi dañu am ay njaboot am ay doom am ay métier bu fekkee ne yow sa baay bi nga xam ne daf lay séen nga sol sa tenue sol sol sa bâche wut sa dumat sa mepp dem gétti nga dugg géej dafa ñaari fan dellu si mënoo ñëw am vingt cinq mille waaye boo wàccee géej da ngay gis paa bi toog ci booru gaal gi di wut nar nar mooy jën yi ñu koy jox bu wàccee nga xool sa papa mu am 60 ans yow nga am 27 ans ça veut dire que si tu te projettes dans l'avenir yow sa avenir comme sa papa ngay mel parce que nit ku nekk bu doon sa sa papa ni mu mel nag noonu ngay mel wala nga romb ko booy mécanicien bi liggéey wala menuisier gis patron am mu nekkoon référence am bi muy booy diw liggéey mécanicien la moom mu bëgg mécano di ciy dugg. gis ne mécanicien bii moom patron wam bii tey da koy séen muy jox booy cent franc ñu jëndal ko pain namme mu ñëw moom lay ndekkee moom xale bi bu amee trente ans kooku dootul nekk référence am parce que nit pour mu nekk sa référence il faut nga fan ko il faut nga bàyyi ko xel ni ëllëg kii nii la war a mel man damay projeté wu ci nit ngir ëllëg waaw mais booy yii ci kan la ñuy projeté wu wax naa la ko sànq ne la booy yi amuñu yaakaar donc au lieu ñu fi nekk di wax naan ay employabilité di dem wuti ay mots yoo xam ne mënoo ko sax tekki en wolof lan mooy employabilité. Ah. ñaar moo am emploi décent ak emploi vulnérable emploi décent moo lay permettre yow ci sa bopp sa liggéey bi ngay def mën la permettre nga faj say soxla ak emploi vulnérable mooy liggéey boo xam ne. bu tawee sax la nga doon am dootoo ko am waa léegi nga mun a jàkkaarloog booy yi ñu jël li ñu am xam ne géej gi bu buñ ci duggee seen bakkan mun na ci des mais ñu jàpp ne ñoom dañu war a xar seen tànk tubéy parce que gëmloo nañu leen wax nañu leen ne dañu war a tekki te tekki boobu mu ngi fële dinaa la wax lu tax tekki bi nekk fële des fois nga dégg ñu ne la wuy nekk pauvre Sénégal ak nekk pauvre France moo yam nu mu yamee nekk pauvre Sénégal vingt cinq pays les plus pauvres du monde nga bokk ci France bokk ci les sept pays les plus développés du monde ñaari pauvres yi mun naa bokk ma ne nañu bàyyi caaxaan yi il faut redonner espoir à cette jeunesse et ça pour yi arriver comment faire pour, pour, pour y arriver c'est des actes assez forts qu'il faut poser booy bi nga xam ne day jël gaalam ànd ak ay moroomam dem géti géej def fa ñaari fan di wër géej gi pour wut jën mënta am jën parce que bateau yii lañu jox ay licence ñuy ñëw di waabale jën gi di ko yóbbu di dem ci seen dëkk booy boobu bu bàyyee lépp fii tey bàyyi fi njabootam pour dem ci géej gi pour dem Espagne kan moo ko yóbbee il faut une relecture de perspectives. est-ce que c'est pas l'échec des euh, ce que je suis en train de dire xam nga tey booy bi nga xam ne dafa waroon jë ci jën yi la doon jàpp di ñëw di jaay di am dara. nga jël ay bato jox leen ñu ñëw waabale jën gi yóbbu ko mais booy bi faw mu jël gaal topp bato bi yóbbu jën bi bu fekkee ne suñu gerte gi wala suñu fruit yi da nga ko jël jox ko ay tubaab ñu dem di ko yóbbu di ko transformer ñëw di la ko jaay mais bu ëllëgee mais jeunes yi faw ñu topp ñi ngay jaay suñu matière première dama dégg euh, campagne arachidière bële passé le président Macky Sall ne oui 250 francs la ñu jaayee kilo gerte loolu baax na tubaar fakal la ok nga jaay nit 250 francs kilo gerte moom chinois bi mu jël gerte gi 250 francs dem Chine wala léegi dematuñu Chine sax fii lañ koy defaree. def ko chocolat. wala mu transformé ko jël 200 grammes gerte gi jaay la ko 700 francs yow boo duggee ci supérette yi. veut dire quoi ñi ñu jiite yéene wuñu population bi ñu am alors que xamuñu ne bu population bi amee ñoom ñu daldi ci génn j'ai envie wax ak jeunesse su Sénégal ñu comprendre ne tekki doomu aadama du ne sa tekki Europe la nekk wala sa tekki Alaska la nekk sa tekki mu ngi nekk ci yow gëm-gëm gi nga am sa tekki mu ngi nekk ci yow obsession bi nga am tout de suite ne da nga war a réussir mais loolu ñi la jiite ñoo lay teg ci environnement. Mhm. environnement bi ñoom ñoo la ciy teg état du joxe liggéey. xam nga il faut ñu bàyyi naxaate malheureusement ñi ñuy nax mooy école yi ak état bi da ngay jàkkaarloog booy looy def mu ne la management lay def wala gestion des entreprises mhm. waa yow nit ki balaa nga koy jàllal jàngal gestion des entreprises doo ko jàngal nu muy créer entreprise boppam man buggaan yor naa suma entreprise am naa 40 ans 44 ans nga jàkkaarloog man di ma waxu gestion des entreprises pourquoi je te donnerai mon entreprise à gérer alors que man ma mun ko gérer sama bopp donc ce qu'il faut c'est de changer d'approche pour que jeune bi comprendre ne entreprise tey nekkul créer affaire bu nganda dama liir benn contribution il y deux jours pôle emploi en France ñu def benn étude ñu ne étude bi Sur trois emplois, sur trois entreprises créées en France, les deux sont créées par des demandeurs d'emploi. xam nga ñooñu teg nañ leen ci yoon mais ñun ñi ñu jiite amuñu knowledge boobu amuñu xam-xam bi. mais est-ce que looloo taxoon ñu tegoon fi ay institutions tey jii pour euh, favoriser un peu l'auto-entrepreneuriat euh, ñu ngi koy gis euh, délégation à l'entrepreneuriat rapide est-ce na jàpp ne que ki ko jiite lu mu créé. la pédagogie par l'exemple madame ki ko jiite lu mu créé moom ka ko fa teg moom président moom lu mu mus a dafa am solo la pédagogie par l'exemple dafa am solo tey man su ma ñëwee bu ma jàkkaarloog yow boo bindee boo defee sa journal boo bindee chapeau boo ko bindee ni nga ko bindee bu baaxul dama lay wax ne la sa chapeau bi c'est incomplet parce que li ngay def am naa ci xam-xam mais bu fekkee ne yow man dama lay tegal yoon. ñaata ñaata xaalis lañ fi xëpp ci jeunesse bi ñaata programme nga fi dégg ANPEJ euh, FNPJ euh, PAPEJ et cetera fu si nekk ñu dóor ci GEJ et cetera et cetera amul benn njariñ parce que booy yi du xaalis lañu soxla booy yi encadrement lañ soxla booy yi li soxla mooy ku leen teg ci yoon c'est pourquoi je dis que ñi nga xam ne am nañu jaar-jaar ci réew mi c'est important ñuy waxtaan ak booy des fois nga gis kenn ne la wuy mais Bougane fu mu jëlee xaalisam et je me rappelle d'ailleurs euh, le président Abdoulaye Wade mus na ma laaj wuy mais yow foo jëlee xaalis après il ma dit wuy dégg naa ne tu dors par jour ma ne ko président boo bëggoon xam fu ma jëlee xaalis il te suffit trente minutes pour nga xam ko parce que yow yaa jiite réew mi lenn rek laa gëm liggéey bu ma gisee ne jaayum ndox mi daraa ngi ci ma dugg ci lenn rek laa dul def du ma sàcc du ma wuruj du ma waga jaane mais lépp loo xam ne yaakaar naa ne mun naa tax doomu aadama tekki dama ciy xar suma tànk tubéy te su ma la santee dara yow mi may liggéeyloo su ma la santee dara ngay trainer les ma jóg defal ko sama bopp donc état d'esprit la il faut ñu comprendre loo jeunes yi ne leen tekkik doomu aadama c'est pas facultatif du loo xam ne da ngay jël wala nga bàyyi tekki obligation la tekki dafa bari ay façon ñu wax nit ñi lan mooy tekki voilà est-ce que tey am ay milliards mooy tekki mm-hmm. est-ce que am ay millions mooy tekki tekki fi léegi yow ci sa bopp yaa ngi mën a faj sa soxla rek tekki nga maintenant nag fii pesanteur sociale bi dafa dax nit ñi dañ lay pousse ci loo xam ne mënuloo ko mais buñ la poussé ci loo mënul nga dugg ci lu mais il faut que jeunes yi comprendre ne nit il faut nga am parcours dara xëyul sotti nit booy dawal oto sax boo gisee obstacle ci sa kanam da ngay contourner obstacle bi mais da ngay am objectif bu nekk sa kanam nga war koo wuti dama dégg gouvernement bi ñu wax leen ne da ngeen am 48 pour cent de chômage au Sénégal mu nekk tole gars yi xuloo oui lu tax ñu ñuy wax 48 pour cent mais je dis le président de la république a dit pire le président de la république a dit que pour cent de notre économie repose sur l'informel ça veut dire quoi en termes clairs sur 100 emplois au Sénégal les 90 échappent au contrôle de l'État mais loolu moo gën a garaaw naka la ñu war a def ba tey ñooñu nekk ci informel bi ñu encadrer leen mais encadrement boobu dafa am lu mu laaj encadrement boobu dafa laaj pédagogie encadrement boobu dafa laaj yow ci sa bopp yow miy wax waxu transformation informelle mais nga xam nga mus a teg taabalu caaf jaay ko mu jar un gynécologue boo ko jëlee teg ko ne ko transformel informel mais mais mais kooku lan la xam ci nu ñuy transformer informel. c'est peut-être la philosophie gëm sa bopp loolu la mettre en avant peut-être. mais mais mais jànguloo tari amul fenn loo jàngul nga tari ko amul fenn. il faut ñu comprendre de manière claire que lii développer réew volonté politique la laaj tey booy yi nga xam ne dañuy dem ci géej nee naa la ay décision yu ndaw mooy soppi seen doxalin du ay milliards yu ñu leen di xëpp mais ñu am yaakaar ne dans trois mois dans quatre mois gis nga Covid 19 bii dama leen wax ne leen opportunité la waroon nekk ci Sénégal. masque yi ñuy defar kan moo koy defar. du waa Sénégal bi ñu demee ba amatuñu masque jëlee ko bitim réew fan lañ ko doon defaree suñu tailleur yi lañ doon defarloo ay masque tey nen na Aïcha boo jàkkaarloog sa palaatu ndékki xoolal palaatu ndékki bi nga xool lan lañ fi defaree mburu mi blé bañ ko defaree dañ koy wuti beurre bi dañ koy wuti meew mi dañ koy wuti ndox mi sax yow ñi la koy jaay bokkuñu Sénégal et toi tu veux ñu bëgg développer wu. ci situation boobu alors il faut ñu comprendre ne lii développé Sénégal ci transformation lay nekk tey petite et moyen entreprise une petite industrie industrie industrialisation au Sénégal mu ngi ci suñu programme bi ñu joxe woon 2019 ñun dañ ne woon commune bu nekk ci Sénégal les 557 communes du Sénégal il y aura un programme boo xam ne dañuy créer une petite entre une petite industrie dans chaque commune tey dëwliñ bi ñuy defaree Sénégal lu tax tey ñu ñuy wax naan nu dëwliñ bi euh, dëwliñu segal dafa am aflatoxine jigéen ñi nekk Touba di daan seen doole ci machine u segal yi ñu ne leen dëwliñ boobu baaxul dëwliñ bi baaxul ta ngay continuer di lekk tiga dege te ngay lekk maafe di lekk euh, daxin loo koy defaree du gerte kon lu tax ñu bëgg ñu wax ne na gerte boobu dafa am jàngoro bu ci nekk il faut ñu comprendre te bàyyi di pousser nit ñi ñuy dem vers l'importation bu ñu tànk dagguñu chaîne boobu c'est-à-dire créer benn jonction ci secteur primaire ak secteur secondaire li ñuy bay ci réew mi ñu koy transformer ci réew mi laata ñu koy jaay keneen ku mu mën a doon mm. mais tey Amérique est-ce que xam nga tey Amérique lii bu doon portable boo koy dugal biir États-Unis dan fexe ba dana na la doo ñu jaay portable bu pare danga ñuy jaay portable bu amul batterie wala nga jaay ñu portable bu amul oparleur parleur wala amul micro ñun ñu jël suñu micro ñoom waa Amérique defalal ko seen bopp mais ñun lépp lu ñu soxla bitim réew lañ koy jëlee la preuve xoolal ñun fi ñu toog ci plateau bi tissu yi ñu sol ñun ñëpp jógewu fi dañ koy jëli bitim réew alors un état intelligent un état stratège mooy état bu muus état buy xalaat ne lii su ma ko defee du ma xaar secteur privé bi man dinaa ko defal sama bopp ba gis résultat pour que sama ndaw ñi comprendre ne lii defar Sénégal mu ngi ci biir Sénégal ñaata nga am tey ci suñuy force de sécurité force de sécurité yi au Sénégal mot na presque vingt mille seen dàll kenn du ko fi defaree moonte dàll yaa ngi ngaay nee ay Aïcha boo ko sol la dàllu ngaay danaan la amul finition amul finition d'accord mais ñi am finition dañu leen encadrer qu'est-ce qui empêche à l'État de créer un programme de qualité qui va encadrer les les cordonniers de Ngaye pour que ñu mën leen a encadrer ñu xam naka la ñuy defaree dàll bu am qualité. d'autant plus qu'on a ici la faculté des sciences et techniques. on a tout ce qu'il faut ba pare dañu aaya ah, dañu aaya. c'est sur l'industrialisation jéem a euh, freiner un peu euh, loo xamante ne ñu ngi koy. fëgg jaay fëgg jaay lu gën a indiñ loolu amut tubaab bi day sol yéreem ba mu ràpp mu dajale ko fóot ko. ñëw indil la ko ne yow solal. nga koy jiiroo. ngay dem di ko jiiroo kolobaan. waaw. ña koy jaay ci ban secteur lañ nekk. ce qu'on appelle tertiaire mooy ñiy jaay. waa léegi bu ñu puusoon tey ñun suñu tailleur yi. organiser leen ba ñoom ñu mën a defar kilote mën a defar t-shirt mën a defar et cetera et cetera waa ñiy jaay du ñu am lu ñuy jaay est-ce que bu boobaa du ñu am ay milliardaires ci tailleur yi est-ce que bu boobaa du ñu am ay millionnaires ci eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay euh, fourniture yeeg et cetera et cetera donc lii defar réew encore une fois nen ne Aïcha lu tuuti la nit ñi dañuy jàpp ne ay mbir yu rëy la nee naa la bi ma déggee ne dañuy def remaniment ma for dans la presse ñu ne dañuy rajeunir gouvernement bi ma ne alhamdulillah ñii comprendre nañu Aïssata Tall Sall man bi ma nekkee lycée technique André Patavin ministre la woon <laughs> tey mu ñëw nekkaat ministre en deux mille vingt je n'ai rien contre elle mais je trouve que à la limite day tekki ne Macky Sall mag ñi la gën a bàyyi xel que ndaw ñi. Macky aime les retraités comme ni ko euh, Omar Faye di waxee alors il faut une alternance générationnelle.